laa ilaaha illallah imaam Seex laa ilaaha illallah faal yàlla borom jaam ñi laa ilaaha illallah laa ilaaha faal illallah faal laa ilaaha illallah imaam Seex la ilaha illallah faal la ilaha illallah maam Seex la ilaha illallah faal yàlla borom jaam la ilaha illallah faal illallah faal dango goodi jiitu leen maam seex fula góor dee ti dabeey faal buri buri laa ilaaha illallaah laa ilaaha faal illallaah faal yaa jàpp góor sol koy leen maam seex xol bay fees faal mi bëngeey faal yàlla borom jaam ñi laa ilaaha illallah laay faal illallah faal bàmmeel ñu ñaaw lu ndum lool maam seex jëfu fay seede borom faal yàlla borom jaam ñi laa ilaaha laay faal إلا لا فال لا إله إلا لا إمام شيخ لا إله إلا لا فال يلا بروم جامي لا إله إلا الله إلا لا فال ñoo ngi ñaan faal dellu ñaan maam Cheikh yàlla ñaan yépp lu ngooy faal buri buri laa ilaa illa laa faal illa laa faal barke Borom Tuuba jëri un wa mun jin min zunubin wa min zulmi madinatu ilmil murtajan minnatun lana jari'un wa munjin min zunubin wa min zulmi ma la wanni bi nabi kulla fasidan wa sirtu lo abdan khadiman bila khammi من الله إلى بيارس يبغي صلاته بتسليمه للمصطفى المخدر يمين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 alayhi wa sallama addi borom Tuubaa asalaamaaleykum mbokki jullit mbokki taalibe yi jotaan nañ ndigal ci Ahmadul Muntaqa di ko ñaanal sunu borom guddal fanam lool te wéral ko wàcc sëriñ Amdi Fall Moodu Mbenda di xalifatu Cheikh Ibrahima Fall sunu borom yàggal ko fi lool te wéral ko waaye daagu nag jëm kër soxna say bataay dara kër Cheikh Abdoulaye Al Yaqin bis bi nga xamante ni Serigne Ahmed Dieng Naar Fall mi ngi ciy fàttaliku Cheikh Ahmad Bamba Xaadim Rasul daame ci kokkeeg Matar Ndumbe gàtt ndaag ak ndaag ak maree maak amin te yàlla di ko ci fàttaliku waaye di ci delloo njukkal Amadou Fall Seer Ndiaye Birame Jébbi Càngaay waaye nag di ci fàttaliku maamam ja nga xamante ni dafa àndoon ak Serigne daay ay yàqin bis bi nag bu ñu xëyee danañ jàngal Xuraanul Karim yendoo ko bu ñu demee ba ci ngoon gi dañ def cérémonie officielle waaye bis la boo xamante ni Serigne Touba lañ ciy delloo njukkal ci fàttaliku Cheikh Ibrahima Fall bu ñu ñëwee suba la màggalu Serigne Abdoulaye al yàqin bis nag bu dee dem ba sëti saaba yi ànd ak moom ñi nga xamante ni buntu kër Cheikh Ibrahima Fall yi kenn desul buntu kër Serigne Touba yi kenn desul buntu kër Saaba yi kenn desul Serigne Ahmed Dieng moo toll noon naar ni maa ngi woo góor jigéen mag ndaw képp ku naan ashadu an laa ilaha illallah ashadu anna muhammad rasulullah bis boobu sa bis la ndax damaa dënmal Serigne Ablaye di ci fàttaliku Serigne Touba damaa dënmal Serigne Ablaye di ci fàttaliku Cheikh Ibrahima Fall damaa dënmal Serigne Ablaye waaye di ci fàttaliku sama maam ci kat Serigne Babacar Ngom waaye nag war na mën a ne cheikh cheikh yi sang-sang yi yaakaar yi jàmm ñi daj dëpp gi toxorog Ibrahima Fall al boo ko ci dee delloo njukkal mën na sëkk mu ne nag bàyyiwuma benn doomi soxna képp ko naan asadu an laa ilaha illallah asadu anna muhammad rasulullah su ma limee dama dul damay damay damay jum waaye duma duma wàcc yoon wi moo tax mu ne maa ngi woo ñëpp bàyyiwuma kenn goor jigéen mag ndaw kër Cheikh Ibra nag buntu kër Cheikh Ibra bu ne la tàmbale Cheikh Amadou Moustapha ba Cheikh Amadou Moutada yi nga xamante ni mooy buntu kër Cheikh Ibrahima Fall yi bàyyi ma ci kenn kër Sëñ Touba la tàmbale si Cheikh Moustapha Mbacké ba ci soxna May Kabir ba ci soxna May Fadja wu wuñu kenn waaye kër Sëñ Ablaye Yaqin la tàmbale ci Cheikh ba mag ba ba ci Cheikh bi gën a tuuti nee na bàyyul kenn tagkat yonent yi nee na bawul góor bawul jigéen bawul mag bawul ndaw ku ma xew xewle ñëw na wuy si la tatagal la sa bis ndax naar bi nag cool yi mën naa bari boo ko nee jàkk xam ne sëñ Tuubaa lay waajee boo ko nee jàkk xam ne Seex Ibra lay waajee téye la maara bu piliboo kon mi ngi koy waajal bis baa ngoog ku yeex incha allah doom foo toog jërë ngeen jëf kon bu ko defee rek ñu yëkkati kàddu gi jox soxna Nabou Sylla moom sëñ Omar sàmb mu joxal kàddu yi jigéen ñi bu ko defee ñu doo ko àggale di des ci liggéey bi jërëjëfe borom tubaa jaaraama maam Cheikh Ibrahima Fall Lamp ñu ngi ziare kulluhum koo xam ne yaa ngi dégg sunu kàddu di jël nuyoo bi ak ziar bi di ci jiital Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké xalif général des Mourides di ci teg Serigne Amdi Modou Mbenda Fall xalif général des Baye Fall di ñaan sunu borom yàggal leen fi te wéral leen ci barki Sëriñ Tuubaa ñu ziare bu baax a baax kilifa yi nga xamante ni ñoo fi teew bu ngeen déggee sunu kàddu xam ni am na lu xew ñu ni lan la ñu ni Cheikh Mouhamed Dieng Naar Fall moo woote bis kañ le premier incha allahu rabbi doon biñ ne suba la bisu màggal si am naa yaqin gàmmu gi mu koy woote fii ci daara ji di ci woo mbokk taalibe yëpp képp koo xam ne yaa ngi dégg kàddu gi xamal ni bis bi sa bis la li ko kilifa gi waxee tàmbali ba fa mu yam incha allahu rabbi mu ngi njëkkee ci jàng alxuraan jàng xasida tudd yàlla te Cheikh Mouhamed su wootee mën naa li ñëpp war a teew ndax képp koo xamante ni rek am nga bis mën naa ni moo ca mën kon képp kuy dégg suñu kàddu na xam ne ñu la ciy woo di fas yéene ànd ak yow bis bi bépp daayira boo xamante ne moo ngi Cees ñu ngi lay woo ci bis bi rawatina muxaddimaatul xidma daayira urul ay lii daayira rijaalullaahi daayira jësbul murit ba ci yaay fal xidma képp koo xam ne yaa ngi dégg kàddu gi rek ñu ngi lay woo ci bis ba incha allahu rabbi le premier kon mbokk bis baa ngi noonu ñu ngi jéggal bu baax a baax. jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba raw lak maam Cheikh Ibrahima Fall maa ngi ziar mbokk taalibe yëpp di ziar sama mbokk soxna yi soo leen dégg kàddu gi nag ngeen xam ne am na lu xew lu xew Cheikh jeg Diegane Fall moo woote cant gu mag bu ñu naa suba la gàmmu Cheikh Abdoulaye Yakhine dara Cheikh Ahmed Dieng nag bu wootee ñun ñëpp war nañoo takk wuy si ko ndax lu xew ci koñ bi rek ak ku xew la rek Cheikh Ahmed jeg naar faal mag nga fa maa ngi woo nag suñu mbokku naari waa Géejawaay waa Pikine waa Ngumba ndax seen doom moo xewle muy Cheikh Ahmed Dieng naar faal di woo nag sama mbokk soxna yi nga xamante ni ñoo nekk fii si kër Sëñ lay yàqin di leen wooyee ñëpp si bis bi di leen wax bis baa ngi noonu ngeen génne sañ sa yeeg yëpp rek xam ne suñu cheikh bi moo xewle ñu ngi jégalu baax ci kàddu yi nag. léegi nag ñu fa séenee jox sama umpaañ soxna maam jaara séeri naar faal <laughs> boroom ceeb bi neex yi. waaw maaleykum maa ngi ziar mbooloo mi ñu fi nekk ñëpp maa ngi ziar mbooloo mi fi nekk ñëpp <laughs> di woo ñëpp ci bis Cheikh Ahmed Dieng naar faal bi nga xamante ne la première la moom moom bu wootee daanaka ñëpp soobe yàlla ñëpp ay ñëw ndax bay faal te nekk yàgg na ne ci waar wi. macha allah maa ngi woo ñëpp man nit sama mbokk jigéen ñëpp maa ngi leen di woo <laughs> dama mënta wax nag waaye maa ngi woo ñëpp te ñëpp a ngi koy waaj sax incha allah di ziar sëñ Seex bu baax a baax ak ñoom sëñ Asan ñëpp sëñ Barakat ñëpp maa ngi leen di woo ci bis bi yéen daal nañ ko àndandoo ñëpp sooba yàlla. jógee ci kàddu yi yi nag ñu delluwaat ci góor yàlla yi jox sëñ Maodo mu tënkal ñu ko ci rek ci wàllum nasaraan. bis bi nga xamante ni nag bis la boo xamante ni bisub Serigne waaye delloo njukkal Cheikh Ibrahima Fall la moo tax ku ci ne am nga ci wàll sëñ Maodo bisimilah. aouzu billah bismillah inna waliyallah jërëjëf Serigne Touba sous l'égide du khalife général des Mourides Serigne Cheikh Mountakha Bachir et de Serigne Mbaye Ngom Rijal khalife de Cheikh Ababakar Ngom Cheikh Ahmed Dieng a le plaisir de vous convier à sa journée de Sante Cheikh Ahmadou Bamba qu'il organise le mardi 1er octobre au quartier Ablaye Yakin. Sur ce, il lance un appel solennel à tous les fils et petits-fils du quartier ainsi que à tous les chanteurs religieux du dit quartier. Cette journée sera animée à, à partir du matin avec des récitals du Saint-Coran et la nuit avec des chanteurs religieux animés par Atouman, Serine Fallongom et tous les chanteurs du quartier. Merci beaucoup. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإن أعز بك وسريتها من الشيطان الرجيم mbokki julli mbokki taalibe yi asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu noo ngi leen di nuyu di leen siyaara waaye di jidel ci nuyoo bi Cheikh Mouhamadine El Mountakha di ko ñaanal mu yàgg fi lool te wér di teg Cheikh Modou Mbenda xalifa maam Cheikh Ibrahima Fall danga koy ñaanal mu yàgg fi lool te wér waaye di ci tegit eh, ki nga fi ki nga xam ne moo fi nekkal Cheikh Abdoulaye El Yaqin di ab xalifaam di ko ñaanal mu yàgg fi te suñu jataay bi nag boo ko gisee ma man sa xel mën naa dem ci Cheikh Mohamed Dieng Naar Fall mi nga xam ni moo woote jataay bi jublu ci euh, màggal euh, bis bi nga xam ni mooy bisu Cheikh Abdoulaye Yaqin waaye di ci sant sëriñam ba maam Cheikh Ibrahima Fall di ko ci njukkal a ah, moo tax mu woo mbooloo mi yëpp woo mboolem murid fuñ mën a nekk ci gox yi ci réew yi ñu nekk ci adduna bi yëpp Cheikh Mahamad Dieng mi ngi leen di woo ci bis bii nga xam ni moom lay njukkal Cheikh Ibrahima Fall waaye di ci sant Serigne Touba ak maamam ju baax ja Serigne bi nag mi ngi woo ñëpp képp koo xam ni dégg nga euh, seetaan nga annonce bi daal mooy sa woote ci ñëpp nag muy Cheikh si ak Serigne si ak mboolem ñi nga xam ne ñoom la bokkal gox bi di Thiès. fu ñu fi mën a nekk sëriñ bi mi ngi leen di woo ci bis bu màgg bi nga xam ni moom lay def di ci sant sëriñ Touba sëriñ bi nag nee na képp koo xam ne ñëw nga ci bis bi mi ngi ñaan ci barkeb sëriñ Touba suñ boroom far say bàkkaar alaxira kon nu ngi woo ñëpp woo nañ jànkati xasaayit yëpp woo nañ sëriñ sëpp woo nañ Baay fali woo mboolem ñi nga xam ne daal koo xam ne daal Cheikh Mohamed mas na laa defal teraanga sëriñ bi mi ngi lay woo ci bis bi bis bi nag mi ngi le premier le première octobre la sëriñ baa ngi ci woo ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. jërëjëf sëriñ Mbacke Ngom kon bu ko defee rek ñu jël kàddu gi jox ko sëriñ sëriñ Ameth Naar Fall di sant bu baax doomi soxna yi nga xamante ni ñoo bokk ñoom jataay bi ñu njabootu sëñ Modou Ablaye gi ak ak njabootu Cheikh Modou Moussa gi fi toog yëpp bàyyiguñu kenn Cheikh Ameth moom moo demee nii ndax dafa am leen teeg ñëpp kon ñu joxal ko kàddu gi rek bu noppee ñu def ñaan xawasani llahu min aseytaani waxaadani manaafi al awtaan rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli salaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñoo ngi nuyu ñëpp di leen siyaare di ñaanal suñ Muhammadul Muntaxa Mbàkke yal na ko fi sama borom doole yàggal di ko ñaanal itam mboolem xulafa u yëpp di ñaanal nag sëñam di Moodu Menda Fall mi fi wuutu Cheikh Ibrahima Fall ak mboolem njabootu Cheikh Ibrahima yëpp di ko ñaanal njabootu Cheikh Abdoulahi Yaqin mii ñu ne ci tey di waaj bis boo xam ni mu ngi am ci bunne suba la màggal Sëñ Abdoulahi Yaqin dëppoog la premier octobre màggal gi di la octobre bis bi nag lii ko sabab moo di sant Serigne Touba jaajëfal Cheikh Ibrahima Fall waaye delloo njukkal Cheikh Abdoulahi Yaqin mi nga xam ni sunuy maam seeni waay jur ñëpp lu nu am ginnaaw yàlla sëñ Ablaay la ci biir loola mu faggulaaleel ñu ñun sët yi waxoon maam yooye ni leen liggéey bi ngeen may liggéeyal defaaleel naa leen ci biir loola ku sosooti ci yéen ganewaale ngërëmal yàlla te loolu yëg nañ ko bu baax kon jaadu na ci ñu delloo ko njukkal feeñal lu bari ci am njàngaleenam ak doxinam loolu moo sabab bis bi waaye nag ñu am ci ndigal muy xalifab sëriñ Babacar Ngom mi nga xam ne moom la wóolu woon dénk ko njabootam lu Serigne Badakan mi nga xam ni ku ma xam xam maak moom tey jii sëñ Assane mi toog jëmmam la fi tooge jotaay bii ñu nekkit ñu ànd koog Serigne Cheikhouna Fall mu sëñ Modou Ablaye ànd koog mbooleem ñi nga xam ne ñoo bokk ne Cees di liggéeyal Serigne Touba ak Cheikh Ibra ni ko Baye jabeel mu baax mi moom Serigne Basirou Sarr waxee léegi rek Serigne Bakke Ngom di seexub Serigne Badar mu sëñ Abib mu sëñ Mandumbe moo ngi noonu léegi yëkkati kàddu ngir sunu digg ak ñoom waaye bis sëriñ bi itam mën naa wax ci kàddu sëñ ba Kane ndax ndigal la ñu am ci lii mooy woo mbokki taalibe yëpp ñu ànd sant sëriñ Tuubaa sëriñ Tuubaa nag ku ne amel na ko cant waaye ku sant sëriñ Tuubaa nag war ngaa jaajëfal a Cheikh Ibrahima Fall Babul Muridina mi nga xam ne sëriñ Tuubaa ko waxoon ni ko rubba seyqi yu nu man yarkanu ilayhi bëri na ku fi ñëw ba dem te kenn ci moom waaye yow Ibrahima Fall tasaare nga sama ëmb ba fu ndox mi egg su si egg fa ngelaw li egg fa sama njëriñ dana fa egg kon sëriñ Tuubaa sant ko war na ku ne ndax defal nanu lool defal ko lislaam ku lislaam ñor nag ameel nga ko ak cant kon nag bis baa ngi noonu ñu ci jaajëfalit Cheikh Ibra Fall mi nga xam ne Cheikh Abdoulahi Yaqin mi ba mu bàyyi koo màkk ñëw Cheikh Ibra Fall la ko sama borom tànnal mu def ko wasilaam mu mat ko sëkkit ànd ak moom liggéeyal ko liggéey bopp ñëpp ci jariñu ba tey muy ki man ci yoonu murit jëmmi Cheikh Ibra waaye biir kër Cheikh Ibra Fall itam sëñ Abdoulahi Yaqin yaa tax ba Abdoulahi ñaxib lambi ndigal far na ko la gaañee giiróom moo ca xab tabax na ay kër di joxe doonoon jàmbaar joo xam ni jëfinam ak doxinam yéeme woon na yéeme goo xam ni ci li mu daa joxee addiye loolu lépp warees na ko di ko fàttaliku ngir ndaw ñi kenn ku ci ne xam ne liggéeyal Sëriñ Tuubaa rek mooy dëgg liggéeyal Sëriñ Tuubaa rek mooy tax ñu am li ñu bëgg waqdil xawaaij yi lazina daamoo fi xidmati wahab loolu maaraamu kon nag loolee rek la ñuy fàttali mbokki jànkatu xaside yi fii teew tey dañ fee teewal seeni mag teewal fi ñi fi ñëwul maa waa am na ñu mu léegi muy sëñ aatu sëñ fàllu waaye njaga zikuru la pajeng soxna nu goy géy bis bi tam dama ko ci sargal am nay parrain am nay mare waaye moom loolu lépp jotaay bi ni mu tënkoo moo tax jotuñoo leeral lu bari waaye incha allahu rabbi bis baa ngi noonu woo naa ci mbooleem kuy ab murit mbooleem ku dib jullit mbooleem ab Baay Faal ku ne ci dëkk bi Cheikh Omar Samb duñ ko fàtte ndax njabootam a ngi fi yëkkati léegi kaddu ci turam yëkkati kaddu ci sama tur ak mbooleem turu rijaalullaahi ak ñëpp kon nag bis baa ngi noonu saybata woote na ci samay mbokk muy mbokki naar yi di mbokki sérif yi maam jaara woona mbokkam itam noonu laay wooyee mboolem mbokk yëpp di ñaanal nag njabootu Serigne Babacar Ngom gépp rek ak mbooleem kuy sëtu saaba rek ñu ngi lay woo ci bis bi dëppoog talaata bii di ñëw bu dellu see ñu def ko rek talaata yi Cheikh Ibra Fall incha allahu rabbi kon mbooleem ku teew rek sëñ Cheikhouna Fall Serif Assane sëñ Mbàkke mbooleem ku teew sant nañ la bu baax a baax a baax kàddu yi du mën a gudd ndax ab woote la rek waaye daal sant nañ bu baax sant nañ télé bi itam jaarale ko ci suñu xaadim sumaare mi DG bi nga xam ne suñu borom dañoo boole ñu bokk lépp muy jàmbaari Serigne Touba kon nag bis baa ngi noonu ni ko jabeel waxee rek ni ko ñëpp waaj incha allahu rabbi mbooleem fu bis di bëgg nañ mu weesu ko ndax kin ciy sant ak kin ciy jaajëfal waaye kin ciy delloo njukkal di si Abdoulaye Yaqin buñ ko wekkee ci moom rek liñ bëgg lépp dinañ ko am kon nag Serigne baa ngi woo ñëpp ci bis bi ndax a bisam la moom bisu mbokki taalibe yëpp la tam ndax naar faal kat naar faalum ñëpp waaye ñii nu ma yàgg miineel daal baat nuy tukki du ma maa ñoom ba géej gi fer kon nag sant naa ñëpp waaxiru daawaana an alhamdulilahi rabbil alamin kon ñu jox sëriñ bi mu ñaanal ñu rek bu ko defee ñu jox leen rendez-vous incha allah mm, le premier octobre ci kàttanu yàlla fi amaanillah kon bu ko defee rek ñoo ko déggandoo bis baa ngi noonu bisub murit la bisub yaakaar la bisub delloo njukkal Serigne Touba la waaye nag delloo njukkal dàmbi ci kokkeeg mataar nu be gàdd ndaag ak ndaag ak mare maag amintee la suburi sëñ Bàkke maaram xaadim borom nit ñi ñaanal di ñaanal Serigne di Fall Modou Mbend xalifatu Cheikh Ibrahima Fall Amadou Fall Sayer Ndiaye ak Birame Jibi Càngaay naar Fall attaqué nag murit yi attaqué Baye Fall yi bis baa ngi premier incha allah jërë